le 23 juin 2011 dañoo séddoo institution yi fi rek nekk boo demee assemblée nationale góoru AFP moo fa góor demee exécutif dirigeant APR bi ñuy wax Macky Macky Sall moo fa nekk demee ACTT ba so parti socialiste ñoo fa nekk c'est toujours seen i njiit la ñuy responsabilité ñu fàtte même seen militant dama ne loolu dafa war a dakk léegi nag liy génn fii yëpp moo di ne non au troisième mandat dama leen di xelal rek dama leen di xelal dama ne yéen toog fii tey yéen ñu fekk mbooloo mi ku ci nekk sa néeg sa kër gi nga dëkk def fa tableau bind fa non au troisième mandat diggante Ndar ba Cap Skirring lépp fi benn dëkk nekk jumaay marché terrain foot école lañ fa bind non au troisième mandat les transports publics muy Ndiaga Ndiaye di car rapide di di dañuy bind guddi nga bind bëccëg ñu dugal ci transport bi non au troisième mandat fu Macky xool gauche droite ci ko asamaan suuf mu gis non au troisième mandat wala mu xam ne dafa troisième mandat ma bëgg leen nag may rek dama indi laaj est-ce que ba ngeen a màggat ba ngeen màggat di gontal askan wi macha allah yow ci loolu nga tënk radié deux fois de la fonction publique ndax sa engagement merci doyen ñu jox kàddu gi madame euh, Aminata Lô Dieng ci turu parti appel 3J asalaamaaleykum le peuple du changement maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam képp koo xamante ne yaa ngi fii teew fii tey yow yaa ngi bokk ci gor yi nekk senegal kon ñi toog fii ñëpp ñooy gor yi ak yéen ñi fi ñëw ñëpp damay wax ni l'histoire retiendra man le le le juin 2011 mi ngi ma fekk ma nekk ministre des institutions mu fekk ma ci biir assemblée kon xeer yi mi ma fekk ci biir assemblée kon lan lañ doon xeex doyen wax na ko boobu ñu ngi ne président Wade dafa bëgg def quart bloquant maanaam ku am vingt quatre vingt cinq pour cent élection présidentielle nga daal jàll ñu ne président Wade dafa bëgg def troisième mandat mais peuple bi debout comme un seul homme la main dans la main ay góor ànd ñoom ñoo forcé président Wade mu def marche arrière kon lii ma gis tey seen taxawaay bu ñu defee dix ans après man ma ñëwaat taxaw fii nekk chef de parti di defaat les mêmes revendications loolu dafay firnde l'échec lamentable de Macky Sall sur tous les plans sur le plan de la démocratie sur le plan du développement man maa ko tuddee woon Djimbory Macky Sall roi la roi la jàppee boppam li koy faj nag mooy une mobilisation parce que moom xamul lu dul rapport de force Macky xamul jàmm ay pexeem jeex na bu gisee lii na préparer ay valisam xam ne le peuple sénégalais lui a tourné le dos définitivement comme Macky dem na dem na dem a dem a dem. na dem a dem a dem. na dem na dem na dem a dem a dem. na dem na dem na dem a dem a dem. mani Macky tampi tampi tampi. mani Macky tampi tampi tampi. kon nañu mobiliser wu ànd ak góor yi fi nekk. comme un seul homme bu xeex jotee ñu xeex mi ngi préparer ay nervi pour dugal leen ci biir euh, euh, force de l'ordre et défense def ko lu bon Jean-Baptiste Tine ne maa lànk maa bañ mu ne ko damay dugal ay nervi ci biir gendarmerie bi Jean-Baptiste Tine ne maa lànk maa bañ kon de soutien et de solidarité à ce grand patriote Jean-Baptiste Tine. Motion de solidarité à ce grand patriote Jean-Baptiste Tine. Dignité et honneur. Dignité et honneur. mais on ne nous déshonore pas. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. mais on ne nous déshonore pas. maa ngi lancer un vibrant appel à nos forces de l'ordre et de défense ñu xam ni ils sont là pour le peuple dañoo prêter serment pour sécuriser nos institutions et sécuriser le peuple sénégalais kon nañu nekk du côté du peuple parce que Macky il est fini il n'a qu'à faire ses valises et partir wasalaam wasalaam wasalaam jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Aminata jërëjëf waaw daa mel ne suñu invité spécial bi waxoon sànq daa bëgg a jëlaat kàddu gi waaye nag li ma ci jaaxal mooy fii fii benn kàddu moo fi am amul wax waxaat amul wax waxeet léegi bu fekkente ne daa bëgg a jàll nag mën nañ ko may mu jàll dem yoonam waaye fii moom bu fi jëlaat kàddu waaw jalal ay tana sa nangu dégage Macky dégage ñu jox gi Fatima Babol Diouf muy wax au nom du mouvement Assir bu président Thierno Bocoum fee toogaat di xeexaat pour non au troisième mandat loolu war nañ ko dépasser kon tey revendication loolu dafay firnde l'échec lamentable de Macky sur tous les plans sur le plan de la démocratie sur le plan du développement man maa ko tuddee woon jimboori Macky Sall léegi roi la roi la jàppee boppam li koy faj nag mooy une mobilisation parce que moom xamul lu rapport de force Macky xamul jàmm ay pexeem jeex na bu gisee lii na préparer ay valisam xam ne le peuple sénégalais lui a tourné le dos définitivement comme Macky na dem na dem na dem a dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem ma dem ma mani Macky tampi tampi tampi. kon nañu mobiliser wu. ànd ak góor yi fi nekk. comme un seul homme. bu xeex jotee ñu xeex. mi préparer ay nervi pour dugal leen ci biir euh, euh, force de l'ordre et défense. def ko lu bon Jean Baptiste Tine ne maa lànk maa bañ mu ne ko damay dugal ay nervi ci biir gendarmerie bi Jean Baptiste Tine ne maa lànk maa bañ kon motion de soutien et de solidarité à ce grand patriote Jean Baptiste Tine motion de solidarité et ce grand patriote Jean Baptiste Tine dignité et honneur. mais on ne nous déshonore pas. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Mani, maa ngi lancer un vibrant appel à nos forces de l'ordre et de défense. ñu xam ils sont là pour le peuple dañoo prêter serment. pour sécuriser nos institutions et sécuriser le peuple sénégalais kon nañu nekk du côté du peuple parce que Macky Sall il est fini il n'a qu'à faire ses valises et partir wasalaam wasalaam wasalaam jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Aminata jërëjëf waaw daa suñu invité spécial bi waxoon sànq daa bëgg a jëlaat kàddu gi. waaye nag li ma ci jaaxal mooy fii fii benn kàddu moo fi am amul wax waxaat amul wax waxeet léegi bu fekkente ne daa bëgg a nag mën nañ ko may mu jàll dem yoonam waaye fii moom du fi jëlaat kàddu waaw ay tana sa ngelaw nangu dégage Macky dégage ñu jox kàddu gi Fatima Babor Diouf muy wax o nom du mouvement Assir bu président Thierno Bocoum que war nañ fee toogaat di xeexaat pour non au troisième mandat loolu war nañ ko dépassé kon tey jii nii Macky bu ko defee élection yi fépp opposition présenté benn liste ñu jël collectivité locale yi doog a song nag législative bi dem imposé ko ci biir assemblée bi cohabitation li ci res nag xam ngeen li ci topp moom mooy forcé ko mu organiser élection 2004. bu ko organiser daf fiy jógee bu fi organiser wul daf fiy jógee moom mooy choisir jërëjëf donc kàddu gi ñu koy jox Guy Marius Sagna muy wax ci turu FRAPP France dégage mbokk yi nuyu naa leen jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu naa leen maa ngi fii du fi amee troisième mandaa fii du fi nekk ñetteelu yoon candidat bu bëggee nekk candidat na dem ci beneen réew ci àddina bi waaye du doon ci Sénégal man Guy Marius Sagna fukki at ci ginnaaw man maa jiite woon M23 bu Tambacounda buñ ci tegee fukki at ma taxawaat fii naan non au troisième mandat non à la troisième candidature lu muy tekki mooy Sénégal avancé wul dafa taxaw ci diiru juróom ñetti at tey xëccoowuñu M23 xëccoowuñu 23 juin fan laa nekkoon 23 juin 2011 nekkoon naa assemblée nationale 23 juin 2011 jëfee ko tey moo ëpp solo yéen mi nekk fii esprit wu 23 juin moom ngeen di jëfee te loolu moo am solo fi ma nekkoon 23 juin 2011 amul solo ban taxawaay laa am tey loolu moo am solo dégg nañu ay taskatu xibaar naan depuis démb xaw ma barki démb dañuy xëccoo 23 juin ñun xëccoowuñu 23 juin xëccoowuñu M23 ñun li ñuy xëccoo mooy la défense intransigeante de la constitution li ñuy xëccoo mooy troisième mandat du fi am moo xam président Ablaye Wade mooy président moo xam Macky Sall mooy président moo xam Bougane mooy président moo xam Ousmane Sonko mooy président moo xam xawma kan mooy président moo xam Abdourahmane Diouf mooy président moo xam Déthié mooy président moo xam Mame Diarra Fam mooy président fii duñ fi nangoo troisième mandat fii kenn du fi nangu troisième candidature dañoo bëgg mu leer nekkuñu ñoo xam ne dañuy wax démb lii tey ñu wax safaan ba ku munti nekk président fii ci Sénégal doo fi nekk doo fi am troisième candidature dañoo bëgg muy leer loolu bu noppee dafa am solo ñu wax ne lan mooy la fonction du troisième mandat lan moo tax Afrique foo dem ngay dégg troisième mandat Guinée troisième mandat Côte d'Ivoire troisième mandat Sénégal troisième mandat ñaar laa ci bëgg a wax benn bi mooy président yi gën a bon ci àddina bi ñu ngi fii ci Afrique rawatina ci réew yi nga xam ne France moo leen colonisé woon président yi gën a bon ci àddina bi mooy président yoo xam ne au lieu ñu régler ñàkkum jàng bi ñàkkum xëy bi jafe-jafe ci wàllu hôpital jafe-jafe ci wàllu chomage jafe-jafe béykat yi jafe-jafe sàmmkat yi jafe-jafe nappkat yi ñu ñuy imposer un débat sur le troisième mandat loolu mooy président bu tey lu ñu waroon wax ngeen di ci topp moom mooy forcé ko mu organiser élection 2004 bu ko organiser dafay jógee bu fi organiser dafay jógee moom mooy choisir jërëjëf donc kàddu gi ñu koy jox Guy Marius Sagna muy wax ci turu FRAPP France dégage mbokk yi nuyu na leen jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu naa leen maa ngi fii du fi amee troisième mandat fii du fi nekk ñetteelu yoon candidat bu bëggee nekk kandidaa na dem ci beneen réew ci àddina bi waaye du doon ci Sénégal man Guy Marius Sagna fukki at ci ginnaaw man maa jiite woon M23 bu Tambacounda buñ ci tegee fukki at ma taxawaat fii naan non au troisième mandat no à la troisième candidature lu muy tekki mooy Sénégal avancé wul dafa taxaw ci diiru juróom ñetti at tey xëccoowuñu M23 xëccoowuñu 23 juin fan laa nekkoon 23 juin 2011 nekkoon naa assemblée nationale 23 juin 2011 jëfee ko tey moo ëpp solo yéen mii nekk fii esprit wu juin moom ngeen di jëfee te loolu moo am solo fi ma nekkoon 23 juin 2011 amul solo ban taxawaay laa am tey loolu moo am solo dégg nañu ay taskatu xibaar naan depuis démb xaw barki démb dañuy xëccoo 23 juin ñun xëccoowuñu wuñu 23 juin xëccoowuñu wuñu M23 li ñuy xëccoo mooy la défense intransigeante de la constitution li ñuy xëccoo mooy troisième mandat du fi am moo xam président Ablaye Wade mooy président moo xam Macky Sall mooy président moo xam Bougane mooy président moo xam Ousmane Sonko mooy président moo xam xawma kan mooy président moo xam Abdourahmane Diouf mooy président moo xam Déthié mooy président moo xam Mame Diarra Fam mooy président fii duñ fi nangoo troisième mandat fii kenn du fi nangu troisième candidature dañoo bëgg mu leer nekkuñu ñoo xam ne dañuy wax démb lii tey ñu wax safaan ba ku munti nekk président fii ci Sénégal doo fi nekk doo fi am troisième candidature dañoo bëgg muy leer loolu bu noppee dafa am solo ñu wax ne lan mooy la fonction du troisième mandat lan moo tax Afrique foo dem ngay dégg troisième mandat Guinée troisième mandat Côte d'Ivoire troisième mandat Sénégal troisième mandat ñaar laa ci bëgg a wax benn bi mooy président yi gën a bon ci àddina bi ñu ngi fii ci Afrique rawatina ci réew yi nga xam ne France moo leen colonisé woon président yi gën a bon ci àddina bi mooy président yoo xam ne au ñu régler ñàkkum jàng bi ñàkkum xëy bi jafe-jafe ci wàllu hôpital jafe-jafe ci wàllu chômage jafe-jafe béykat yi jafe-jafe sàmmkat yi jafe-jafe nappkat yi ñu ñuy imposer un débat sur le troisième mandat loolu mooy président bu bon tey lu ñu waroon wax loolu war nañ ko dépasser kon tey jii nii Macky say bu ko defee élection locale yi fépp opposition présenté benn liste unique ñu jël collectivité locale yi doo ko song nag législative yi dem imposé ko ci biir assemblée bi cohabitation li ci des nag xam ngeen li ci topp moom mooy force que mu organiser élection 2004 bu ko organiser daf fiy jógee bu fi organiser wul daf fiy jógee moom mooy choisir jërëjëf donc kàddu gi ñu koy jox Guy Marius Sagna muy wax ci turu FRAPP France dégage mbokk yi nuyu naa leen jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu naa leen maa ngi fii du fi amee troisième mandaa fii du fi nekk ñetteelu yoon candidat bu bëggee nekk kandidaa na dem ci beneen réew ci àddina bi waaye du doon ci Sénégal man Guy Marius Sagna fukki at ci ginnaaw man ma jiite woon M23 bu Tambacounda buñ ci tegee fukki at ma taxawaat fii naan non au mandat non à la troisième candidature lu muy tekki mooy Sénégal avancé wul dafa taxaw ci diiru juróom ñetti at tey xëccoowuñu M23 xëccoowuñu juin fan laa nekkoon 23 juin 2011 nekkoon naa assemblée national 23 juin 2011 jëfee ko tey moo ëpp solo yéen mii nekk fii esprit wu 23 juin moom ngeen di jëfee te loolu moo am solo fi ma nekkoon 23 juin 2011 amul solo ban taxawaay laa am tey loolu moo am solo dégg nañ ay taskatu xibaar naan depuis démb xaw ma barki démb dañuy xëccoo 23 juin ñun xëccoowuñu 23 juin xëccoowuñu M23 ñun li ñuy xëccoo mooy la défense intransigeante de la constitution li ñuy xëccoo mooy troisième mandat du fi am moo xam président ab Ablaye Wade mooy président moo xam Macky Sall mooy président moo xam Bougane mooy président moo xam Ousmane Sonko mooy président moo xam xawma kan mooy président moo xam Abdourahmane Diouf mooy président moo xam Ndéthié mooy président moo xam Mame Diarra Fam mooy président fii duñ fi nangoo troisième mandat fii kenn du fi nangu troisième candidature dañoo bëgg mu leer nekkuñu ñoo xam ne dañuy wax démb lii tey ñu wax safaan ba ku munti nekk président fii ci Sénégal doo fi nekk doo fi am troisième candidature dañoo bëgg muy leer loolu bu noppee dafa am solo ñu wax ne lan mooy la fonction du troisième mandat lan moo tax Afrique foo dem ngay dégg troisième mandat Guinée troisième mandat Côte d'Ivoire troisième mandat Sénégal troisième mandat ñaar laa ci bëgg a wax benn bi mooy président yi gën bon ci àddina bi ñu ngi fii ci Afrique rawatina ci réew yi nga xam ne France moo leen colonisé woon président yi gën a bon ci àddina bi mooy président yoo xam ne au lieu ñu régler ñàkkum jàng bi ñàkkum xëy bi jafe-jafe ci wàllu hôpital jafe-jafe ci wàllu chômage jafe-jafe béykat yi jafe-jafe sàmmkat yi jafe-jafe nappkat yi ñu ñuy imposé un débat sur le troisième mandat loolu mooy président bu tey lu ñu waroon wax ngor yi ana borom jom yi m juin fan laa nekkoon juin 2011 nekkoon naa assemblée nationale 23 juin 2011 jëfee ko tey moo ëpp solo yéen mii nekk fii esprit wu 23 juin moom ngeen di jëfee te loolu moo am solo fi ma nekkoon 23 juin 2011 amul solo ban taxawaay laa am tey loolu moo am solo dégg nañ ay taskatu xibaar naan depuis démb xaw ma barki demb dañuy xëccoo 23 juin ñun xëccoowuñu 23 juin xëccoowuñu M23 ñun li ñuy xëccoo mooy la défense intransigeante de la constitution li ñuy xëccoo mooy troisième mandat du fi am moo xam président Ablaye Wade mooy président moo xam Macky Sall mooy président moo xam Bougane mooy président moo xam Ousmane Sonko mooy président moo xam xawma kan mooy président moo xam Abdourahmane Diouf mooy président moo xam Déthié mooy président moo xam Mame Diarra Fam mooy président fii duñ fi nangoo troisième mandat fii kenn du fi nangu troisième candidature dañoo bëgg mu leer nekkuñu ñoo xam ne dañuy wax démb li tey ñu wax safaan ba ku munti nekk président fii ci Sénégal doo fi nekk doo fi am troisième candidature dañoo bëgg muy leer loolu bu noppee dafa am solo ñu wax ne lan mooy la fonction du troisième mandat lan moo tax Afrique foo dem ngay dégg troisième mandat Guinée troisième mandat Côte d'Ivoire troisième mandat Sénégal troisième mandat ñaar laa ci bëgg wax benn bi mooy président yi gën a bon ci àddina bi ñu ngi fii ci Afrique rawatina ci réew yi nga xam ne France moo leen colonisé woon président yi gën a bon ci àddina bi mooy président yoo xam ne au lieu ñu régler ñàkkum jàng bi ñàkkum xëy bi jafe-jafe ci wàllu hôpital jafe-jafe ci wàllu chômage jafe-jafe béykat yi jafe-jafe sàmmkat yi jafe-jafe nappkat yi ñu ñuy imposer un débat sur le troisième mandat loolu mooy président bu bon tey lu ñu waroon wax tey le vote et gagner les locales parce que parce que parce les élections locales bi élection locale mooy premier touru élection présidentielle bu 2024 marcha pleine ni la présidentielle de 2024 et une élection à quatre tours. Le premier tour, mooy les locales de 2021. Le deuxième tour, les législatives de 2022 et les deux de 2024. Donc pour faire partir Macky Sall, gagnons-le au premier tour des élections locales de 2022 et nous vous demandons tous de vous mobiliser pour son départ. Je vous remercie et je vous adore. Merci beaucoup. merci beaucoup président euh, Déthié yow euh, safoo mburu safo sow Bart nee peut-être ci mburaake bi ngay ñëw bokk rek mburaake bi nga xam moom la opposition bi di waajal euh, pour jëbal ko askan wi ci lokaal yi doon benn du am gerte du am cere fële ak suukar fële mais dañuy boole opposition bi yëpp mu doon mburaake yow doo mburoog soow mburaake nga donc kaddu gi ñu ngi koy jox docteur Babacar Diop professeur Babacar Diop FDS de Guelwaar juróomi baaraam yi ñu tàllal yalwaan la benn baaraam bu ñu tàllal ab joxañ la monsieur Macky Sall suñu joxoñ bi pour yow la dégg nañu dégg nañu à l'instant yaa ngi dajale à la place de la nation des usurpateurs des comploteurs des traîtres oui nous nous sommes le 23 juin parce que nous sommes l'esprit du 23 juin, nous sommes le cœur du 23 juin, nous sommes l'âme du 23 juin. Parce que 23 juin xalaat la 23 juin yéene la 23 juin projet la lan moo waraloon 23 juin lan moo indi woon 23 juin mooy tripatouillage de notre constitution mooy jël sa njaboot dugal ci nguur mooy troisième mandat tey jii la waalo gën a aay tey jii jabar yi doom yi tante yi jarbaat yi yimpaañ yi ñi ci biir nguur gi tey jii le tripatouillage constitutionnel parce que tey jii ginnaaw bi Mamadou Diop décédé à la place de l'obélisque ginnaaw bi nga xamante ni xeexu 23 juin tax na lu ëpp Sénégal avancé wul dafa taxaw ci diiru juróom ñetti at tey xëccoowuñu M23 xëccoowuñu 23 juin fan laa nekkoon 23 juin nekkoon naa assemblée nationale 23 juin 2011 jëfee ko tey moo ëpp solo yéen mii nekk fii esprit wu 23 juin moom ngeen di jëfee te loolu moo am solo fi ma nekkoon 23 juin 2011 amul solo ban taxawaay laa am tey loolu moo am solo dégg nañ ay taskatu xibaar naan depuis demb xaw ma barki démb dañuy xëccoo 23 juin ñun xëccoowuñu 23 juin xëccoowuñu M23 ñun li ñuy xëccoo mooy la défense intransigeante de la Constitution li ñuy xëccoo mooy troisième mandat du fi am moo xam président Ablaye Wade mooy président moo xam Macky Sall mooy président moo xam Bougane mooy président moo xam Ousmane Sonko mooy président moo xam xawma kan mooy président moo xam Abdourahmane Diouf mooy président moo xam Déthié mooy président moo xam Mame Diarra Fam mooy président fii duñ fi nangoo troisième mandat fii kenn du fi nangu troisième candidature dañoo bëgg mu leer nekkuñu ñoo xam ne dañuy wax démb lii tey ñu wax safaan ba ku munti nekk président fii ci Sénégal doo fi nekk doo fi am troisième candidature dañoo bugg muy leer loolu bu noppee dafa am solo ñu wax ne lan mooy la fonction du troisième mandat lan moo tax Afrique foo dem ngay dégg troisième mandat Guinée troisième mandat Côte d'Ivoire troisième mandat Sénégal troisième mandat ñaar laa ci bëgg a wax benn bi mooy président yi gën a bon ci àddina bi ñu ngi fii ci Afrique rawatina ci réew yi nga xam ne France moo leen colonisé woon président yi gën a bon ci àddina bi mooy président yoo xam ne au lieu que ñu régler ñàkkum jàng bi ñàkkum xëy bi jafe-jafe ci wàllu hôpital jafe-jafe ci wàllu chômage jafe-jafe béykat yi jafe-jafe sàmmkat yi jafe-jafe nappkat yi ñu ñuy impose un débat sur le troisième mandat loolu mooy président bu bon tey lu ñu waroon wax tey le vote et gagner les locales parce que parce que parce que les élections locales bi élection locale mooy premier tour élection présidentielle bu 2024 jàppaleen ni la présidentielle de 2024 est une élection à quatre tours le premier tour mooy les locales de 2021 le deuxième tour les législatives de 2022 et les deux tours de 2024 donc pour faire partir Macky Sall gagnons-le au premier tour des élections locales de 2022 et nous vous demandons tous de vous mobiliser pour son départ Je vous remercie et je vous adore. Merci beaucoup. Président euh, Déthié yow euh, safoo mburu safoo sow Bart na peut-être ci muraake bi ngay ñoo bokk rek muraake bi nga xam moom la opposition bi di waajal euh, pour jëbal ko askan wi ci local yi doon benn du am gerte du am cere fële ak suukar fële mais dañuy boole opposition bi yëpp mu doon muraake yow doo mburoog soow muraake nga donc kaddu gi ñu ngi koy jox euh, docteur Babacar Diop professeur Babacar Diop FDS de Guelwaar juróomi baaraam yi ñu tàllal yalwaan la benn baaraam bu ñu tàllal ab joxoñ la monsieur Macky Sall suñu joxoñ bii pour yow la dégg nañu dégg nañu à l'instant yaa ngi dajale à la place de la nation des usurpateurs des comploteurs des traîtres oui nous nous sommes le juin Parce que nous sommes l'esprit du 23 juin, nous sommes le cœur du 23 juin, nous sommes l'âme du 23 juin. Parce que 23 juin xalaat la 23 juin yéene la 23 juin projet la lan moo waraloon 23 juin lan moo indi woon 23 juin mooy tripatouillage de notre constitution mooy jël sa njaboot dugal ci nguur mooy troisième mandat tey jii la waalo gëna a aay tey jii jabar yi doom yi tante yi jarbaat yi yimpaañ yi ñi ci biir nguur gi tey jii le tripatouillage constitutionnel parce que tey jii ginnaaw bi Mamadou Diop dese à la place de lobelis ginnaaw bi nga xamante ni xeexu 23 juin tax na lu ëpp ab joxoñ la monsieur Macky suñu joxoñ bii pour yow la dégg nañu dégg nañu à l'instant yaa ngi dajale à la place de la nation des usurpateurs des comploteurs des traîtres oui nous nous sommes le 23 juin parce que nous sommes l'esprit du juin, nous sommes le cœur du 23 juin, nous sommes l'âme du juin. Parce que 23 juin, xalaat la 23 juin yéene la 23 juin projet la lan moo waraloon 23 juin lan moo indi woon 23 juin mooy tripatouillage de notre constitution mooy jël sa njaboot dugal ci nguur mooy troisième mandat tey jii la waalo gëna a aay tey jii jabar yi doom yi tante yi jarbaat yi yimpaañ yi ñi ci biir nguur gi tey jii le tripatouillage constitutionnel parce que tey jii ginnaaw bi Mamadou Diop desee à la place de l'obélisque ginnaaw bi nga xamante ni xeexu 23 juin tax na lu ëpp réformer te mënoo doxal mu nekk ay poñ yu am importance yoo xam ne au-delà de la mobilisation dañ ciy xalaat taxaw pour que jóge fi Macky Sall bi gën ci gaaw jaare ci élection locale jaare ci élection législative dem ci présidentielle je vous remercie jërëjëf. jërëjëf président Abdourahmane Diouf waaw euh, gars yi il faut ngeen wax ak Sidi Lamine Niass. ndaxte Sidi Lamine Niass bu doon mi ngi fi ci àdduna ba léegi xam nga ne dinañ ko dégg dinañ ko gis ma bëgg ngeen def di bruit pour Sidi Lamine Niass jërëjëf Sidi yal na yokk leer yi aj la ci àjjana si waaw damay woo fii nag ñi nga xamante ni ko ci gis sa xel dem ci 23 juin dañu jékki-jékki gis am benn député ak écharpam takk boppam ci giri assemblée bi mu bokk ci élément déclencheur yi muy président Cheikh Bamba Dièye Barthélémy Diaz ku ko gis sa xel dem ci 23 juin yana a ku ko dégg sa xel dem ci 23 juin waaye Cheikh Tidiane Dieye 6 heures du matin la pointé wetu assemblée étudiants yi fekk ko fa ñu taxaw Parce que nous sommes l'esprit du juin, nous sommes le cœur du 23 juin, nous sommes l'âme du juin. Parce que 23 juin xalaat la 23 juin yéene la 23 juin projet la lan moo waraloon 23 juin lan moo indi woon 23 juin mooy tripatouillage de notre constitution mooy jël sa njaboot dugal ci nguur mooy troisième mandat tey jii la waalo gën aay tey ji jabar yi doom yi tante yi jarbaat yi yimpaañ yi ñi ci biir nguur gi tey ji le tripatouillage constitutionnel parce que tey jii ginnaaw bi Mamadou Diop desee à la place de l'obélisque ginnaaw bi nga xamante ni xeexu 23 juin tax na lu ëpp ko formé te mënoo doxal mu nekk ay poñ yu am importance yoo xam ne au-delà de la mobilisation dañ ciy xalaat taxaw pour que joge fi Macky Sall bi gën ci gaaw jaare ci élection locale jaare ci élection législative dem ci présidentielle je vous remercie jërëjëf. président Abdourahmane Diouf waaw euh, gars yi il faut ngeen wax ak Sidi Lamine Niass ndaxte Sidi Lamine Niass. bu doon